mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement tey nag euh, di euh, lundi le 4 euh, août 2014 ñu am mbégte ak contentement di présenter seen émission Kouthia Show ñu fas yéene nag euh, dem tey ci programme bu yaatu ni ñuy demee nag moom mooy dinañ njëkk ñëw ci Amath Dansokho moom ci boppam dina ñëw wax ci li nga xam ne moom na ci moom mooy euh, Ablaye Wade moom tamit dina wax li téye taw bi ak procès Karim Wade bi waaye maître Madické Niang moom tamit tey ca fële nga xam ne moom mooy tribunal tey nañ la war a wax ndax dañuy atte da ñu topp Karim Wade ca kaso ba tamit boo leen bëggee xam nan la mujjee xam ngeen ne mbokk yi duñu ci bàyyi dara lépp dinañ ko def ak yéen ci kanam lay doon mbokk yi nag tey nag ñu am bi ci contentement di dafa ak émission bi fàttali ko bànneex bi nga xam ne nag moom lañ mujjee def te moom lañuy dabu incha allah ànd ci équipe technique bu mag ci kanam tuuti dinañ ci ñëw xam leen nag ñan ñoo jàppandi ba programme bi mën a taxaw lépp mu nekk mbégte kon nañu def nag moom mooy <laughs> xaaral ma leen rek ay mën waa allo waaw waa sama waaj na nga def waay ça bien kon yaa ngi Europe ba tey nga ne sa waay gisu ko ba léegi <laughs> non mais Youssou Ndour Europe la tàggoo fii non da ko koy dégg Chine non non non non non booy booy booy non booy grand baa Europe mais yow mais na nga non non non non bi avion bi nga dab <laughs> mais nga ko. may nga ne ko si mais grand bi la lay waaxu moom tamit dafa xam ne nag gars yi dañu ko soxla léegi wax non non non non booy nag booy nag boo dem mënoo gis Youssou Ndour booy man loolu daf may jaaxal quoi mais nga jàpp kenn ci monsieur yi sax otage booy xam lu def très bien booy xoolal dañuy organiser benn affaire li xam lu def yow fexal ba orchestre bi fu ñu nekk. su ko defee xoolal mu ut ay tenue militaire xoolal masqué wu bàyyi ba xaaju guddi xoolal nga ñëw kidnappé ñaar <laughs> <laughs> olol borom tam bi ngay kii bee Assane Thiam mu Assane Thiam nga ne kër rek boo ko kidnappé jàpp mbay ngay fee xam nga bu ñu tëggul mbalaax <laughs> grave waaw booy noonu ngay def booy grave bul ko laal jëlal ñaari ba pare laajteel rançon cinquante millions booy defal loolu booy xolal affaire bi day jàll maa la ko wax non du ma ci feeñ instant bi ma wax yow ne du ci feeñ xolal ñu ngi benn hôtel bu nekk côté côté côté non actuellement ni ngi doon Belgique la ñu war a jëm koj leen am naa ay copain naar terroriste xoolal maa ngi leen di woo léegi ñu ma abu ni daal maa ngi leen di woo léegi comme comme moom na nga koy gis ba pare mais mais gis na la non daf leey ba a wax ak yow parce que xam na maa la yóbbante mais booy xoolal attentat xoolal xoolal booy kidnapping nañuy def bu garaaw jàppal ma Assane Thiam xam bu xasee ba nelaw xoolal du gaaw a yeewu moom mbéy ngay fay buy wax jamais deux cent trois rek këfal booy taf bakkan bi rek booy yóbbu leen directement bu ko xaraam côté côté côté Nigéria non booy loolu man xam naa ne booy def loolu grand bi dina gën parce que booy fu mu ne nii grand a xaalis kidnapping rek booy boo ko defalee du baax ah non non non booy loolu.